religieuse bu Medina Gounass nag ay jàppante yu doy waar moo fa daal di xew ci bésu tabaski bi nag ginnaaw bi nga xam ne rek cortège bu xalif général bi di Thierno Amadou Tidiane Ba dañu koo songu daal di caxat-caxatee woto bi nga xam ne rek moo ko yeboon jamono ji nag ñaari kan yépp kenn ku ca nekk yaa ngay joxoñ sa borom baaraamu tuuma Le Quotidien yëglekaay feelu ko ne xaw ma ku màggal tabaski ci jàmm ak salaam waaye Medina Gounass moom bokk ci ndax taluñu ko woon benn doomu aadama ñàkk na bakkanam ci jàppante yi ñu fa doon amal ci bésu tabaski ñu bëri jëli ci ay gaañu gaañu woto yu bëri ñu daal di koy yàqate yéenekaay cabinet fi mu toll nii nag dal am na ci dëkk boobee ndax l'armée bi la ñu fa yebal ngir muy wattu kaaraange askan wa jëwriñ jii di Jean Baptiste Tine ma nga naan ci biir yëglekaay bi suñu tànk yi ñu yëkkati nag jàmm rek moo ko tax a jukko l'observateur ne ak lu mën a am daal la xewoon ca Medina Gunaas doy na waar ba jéggi dayoo yéenekaay bi dellu soit ci jàppante yaak ne mu demee ba benn doomu aadama ñàkk ci bakkanam mu di coow lu yàgg loo xam ne rek dox na ci diggante ay waaso ñaari xalif général yi nag kenn ku ca nekk yaa ngay joxe say dëgg tukki nemmeeku bi nga xam ne rek moom la jëwriñ ju ñu yi daal di amal ca Médina Gounass matukaay yi ñu fa jël ci wàllum kaaraange gi nag loolee lépp daat na ciy dellu suwaat yër leen boobee yëglekaay libération ne jàppante yooyee nag mi ngi doxoon ci diggante ay waasoo xeexoo bu méttee metti xew ci bésu tabaski foofee ca Médina Gounass jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi dem na seeti ñaari parti yépp ba waxtaan ak ñoom jamono ji nag ma nga leen di lancer appel ngir ñu daal di ànd ak dal te dakkal lépp loo xam ne rek moo di fitna gi bu ñu sukkandikoo ba tey ci yëglekaay bi nag daañu ubbi ab l'enquête ngir xam ana fi coow lu jugee bés bi le jour moom itam loolee tey ji nag ci jàppante yi nga xam ne rek moo xewoon ca Medina Gunaas ñaari xalif général yi nag ñu ngay dellu siwaat ci coow la ak na mu juddoo ba benn doomu aadama ñàkk ci bakkanam yéene kaay bi ne lu ni mel ne mekk woon nañ ko fa ci tabaski atum 2007 waaye tamit ay jàppante amoon na fa ci atum 2019 ginnaaw ab almer yoo xam ne rek bëggoon nañ ko faa tabax coow li lépp nag yéene kaay bi mi ngi bàyyeekoo ci dëkkandoo bu ñagas bi nga xam ne rek dox na ci diggante Ceerno Mouhamadou Seydou Ba ak Ceerno Amadou Balde ci jamono ji nag taalibe yi nga xam ne rek ñooy topp xalif bu Medina Gunaas nag la ñu bëgg rek mooy ñu daal di dakkal coow li waaye ñi nga xam ne rek ñoo féetee ci beneen camp bi la ñu bëgg mooy ñu daal di leeral nag li waral coow loolee daal di juddu jëwriñ ji nga xam ne rek moom la ñu dénk wàllu biir réew mi fi mu toll nii nag dal rek lay wootee des ba tey ci tabaski boobee ak màggal gi ñu ko màggal Sud Quotidien dellu suwaat ci sermon yi nga xam ne rek moom lañ doon yëkkati rawatina njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi nag ne daa ñu fexee def seen kéem kàttan ba dund gu cher gi nag ñu daal di koy mën a wàññi yéene kaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye amal na jullit tabaski bu njëkk nag foofee ca grande mosquée bu ndakaaru moom njiitu réew mi daal di defu prox ndoll ngir def ab bilan weer yi nga xam ne rek moom la jiite bopp réew Sénégal ma ngay rafet lu jàmm ak dal gi nga xam ne rek moo am ci biir réew mi tey sàkku ñu daal di koy wëyal di fàttali itam nag dogu bi nga xam ne rek dogu nañ ko ngir mën a jàppale askan wi ñeel dundu gu cher gi nees ko mën a wàññee ba ñu mën caa gis seen bopp Walf Quotidien xëyee ki tey jii nag ci tukki ne meeku bi nga xam ne rek moom la war a amal moom président Bassirou Diomaye Faye foofee ca France yéenekaay bi di l'Observateur Diomaye Faye kay ma ngay wutali ci réewum France ci ab invitation bu Gavi moom dina amal ab déjeuner boo xam ne rek dina ko séeq kii di njiitu réewum France dinañ waxtaanee nag lépp lu jëm ci wàllu coopération yi war a dox ci diggante ñaari dëkk yi wàllum drogue bi la ñuy àddu jëmale ji nag yéenekaay bi di l'Observateur ne douane bu Sénégal amalati nañ liggéey ba teg loxo ab cocaïne boo xam ne rek bu ñu na ci vingt-quatre milliards ci suñu xaalis Walf Quotidien ne wàllu drogue beeg produit contrefait yi nag waa douane bu Sénégal teg nañu loxo lu jëm ci wàllu cocaïne bi nag lu toll ci 324 kilogrammes ci wàllum médicament yi nga xam ne rek dañu koo teg loxo itam nag lim ba toll na ci 392 kilogrammes libération ne ginnaaw bi ñu tegee loxo lim bu takku ci wàllu cocaïne foofee ci AIBD ak ca Kédougou douane bu Sénégal ma ngay woneeti boppam ndax li mu teg loxo ci wàllu cocaïne bu ñu ko nattee ci suñu xaalis toll na ci ñeent fukk ak benn yu toftal juróom-ñett fukk ak juróom ci ay milliards ci suñu xaalis jeexalee ko wàllu tàggat yaram stade yëglekaay ma ngay àddu jëmale ci Pape Matar Sarr mi milieu terrain bu gayndeyu Sénégal